الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله في تاريخنا الماضي أمثلة رائعة من البطولة والإباء ونماذج حية تمثل العزة في أسمى معانيها في أجمل صورها وما أجمل أن نتحدثها لنستخلص منه العزة والعظة لنستخلص منه العبرة والعظة ولنعلم منه كيف كان أسلافنا mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala danan ànd mën a jàng ci istuwaaru mag ñu baax ña ñoo ñu waroon yonent bi alayhi salaatu wassalaam walla ñu jàng dund boroom xam-xam yi nga xam ne lislaam moo leen yar danañ ci mën a génne ci ñoom ay jàmbaar ñu daan bañ ay boroom xam-xam ay nit yu ragaloon yàlla waaye danañ ci génne ay modèle yu dund yoo xam ne daf ñuy jàngal bu nu bëggee am tedd nga tey bu ñu ak bëggee am taraanga àdduna ak taraanga àllaaxira danañ mën a def ñooñu ay modèle mbokk yi dara gën ta rafet ñuy tànn ñooñu kenn par kenn ci ñooñu yoron yonent bi yaroon ñooñu tamit ñañu yaroon ba ba ñuy yegg si fii dara gën ta rafet tey ñuy tànn ci ñooñu ci seen dund di ci mën a jàng di ci mën a def di ci mën a xam waaye di ci mën a waaroo naka la gaa yooyu defoon laka la gaa yooyu nekke woon lan moo leen yaroon ba ñu baax mbokk yi kenn ci ñooñu ku tuddoon Omar ibnul Xattaab moom la ñu jël benn photo benn film bu Omar Omar ma sa dund lu tax ñu taamu ko ndax ngalawaay ñi bëgg a jiite jullit ñi tey ñu jéem a xool Omar modèle jéem a roy ci moom ñi bëgg a jiite jullit ñi mën a xam ku jiite jullit ñi lan moo la war ndax kat kii ba mu jiitee jullit ñi moom xamoon na lu ko war rawa ahadu sahaba قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة الشديد البرد كان في صحابي موي نتالي نينا بن بس جننا عندك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ليلة الشديد البرد ci guddi goo xam ne sedd bi dafa tar ma génn ànd ak Omar mbokk yi tey ñi jiite jullit ñi ndax sax ci tàngoor danañ génn waxuma la ak nag seddaay tey ñi jiite jullit ñi waxuma la ci seddaay waaye ci jamono bu tàng sax dana leen di fekk ñu nekk ci ay climatiseur ci ay ventilateur ci ay caay waxuma la ak nag ci jamono seddaay Omar nee na man dama génn ci waxtu seddaay kon kii xam na li ko war xam na seize bi mu toog ki fa toogoon seddaay daawu ko téye ki fa toogoon seddaay daaru ko tere mu doxi soxla jaam ñi moo tax Omar bi mu ko wuutoo li muy sedd di sedd sahaaba bi nee na génn naa ànd ak Omar xatta ida kunna bi baad tariq ñu dox di wër mbedd yi xam ngeen Omar bi mu jiitee jullit ñi Omar daawul nelaw daawul yendal Omar xamul woon sax palais est-ce que palais am na Omar ci boppam moo yoroon sécurité bi moo daan wër bëccëg ak guddi di nemmeeku jaami yàlla yi bu leen fàtte man duubu Kisra jóge na Rome ñëw di xool kan mooy Omar ndax tur bi rek dafa tiitaloon àddina Omar fuñ ko musoon wax ñépp jub buur boobu ne dem leen ngeen xoolal ma kii ñuy wax mooy kan waa ji bi mu ne cëpp Médine muy laajte waa ana pale bi gars yi ne ko pale ñun amuñu pale de ana kër gaa wa kon ki leen jiite ñu ne ko jaaral nii mu dox ba yegg gis kër gu yemamaay mu laajte ñu ne ko génn na anamu ñu ne ko jaaroon na mbedd mi mu jaar mbedd moomu tourné da ba koñ daje keneen mu ne Omar laay laaj waa ji ne dafa mel ne séenoon naa ko ci garab gële mu tëdd mu dox ba ñëw fekk Omar mu ngi tëdd di nelaw njaganaayoo ay dàllam mu xool ko ne ko xakamta wa adalta wa aminta allahu akbar xakamta atte nga jaam ñi jiite nga leen atte leen bi nga leen attee fa adalta nga maandu moo tax tey nga tëdd fii ci àll bi ci garab gi mën a njaganaayoo say dal am sécurité di nelaw mbokk yi sahaaba bi doon nettali mu ne man ak Omar bi ñu àndee jaar ci yoon bi dañoo jékki-jékki rek ñu gis safara suy tàkk iza naarun tashtaghil safara buy boy mu ne fa harwalna nahwaha hatta danawna minha maak Omar ñu waaxu jëm ca tàkk-tàkk boobu Omar noonu la daan def daan gàdd dëkk bi guddi bëccëg kenn du def lu bon bu nit ñi nelaw Omar yor yaram ànd ak ki mu war a àndal ñuy nemmeeku sécurité dëkk bi di xool jaami yàlla yi nan la ñu yendoo nan la ñu fanaanal Omar seen ci guddi googu ci sedd bu metti boobu safara buy tàkk mu ne ki mu àndaloon nañ dem xooli tàkk-tàkk bee lan la ban demee ba jege ko fa isamraa maaha sibyaan allahu akbar ndeke benn jigéen moo fa nekk moo taal safara si waaye mi ngi nekk ak ay doomam moom soxna soosu wa amaamaha qidrun mansuuba ala naar ci kanamu ndaw si ci xal yooyu benn cin moo ci tegu xale yi wër cin bi ndox mi bax wa sibyaanuha yatadaagawna xale yaa ngi yuuxu di xaacu di jooy cin baa ngi ci kaw xal yi mi ngi takk waaye xale yaa ngi jooy fa qaala assalaamu alaykum ya ashaaba dawi omar daan ne ba mu ñëwee ba jege xal yi mu ne yéen ñi nekk ci xal yooyu ci takk-takk bi ci lumière boobu maa ngi leen di nuyu qaalat almara wa alayka assalaam ndaw si daal di fay nuyoo bi ndaw si fayee nuyu mbokk yi xool leen lu Omar njëkk a def fa qaala a adunu mu ne ndax ma jege lu tax Omar posé question boobu parce que baatu jigéen la dégg déggul baatu góor comme jigéen a fa nekk nag amoo droit rek ndeysaan xoola ñun bu dee ñun la ñun dañuy tël rido ba pare doog a wax asalaamaaleykum ñun dañuy ubbi ba pare ba dugg doog a wax asalaamaaleykum ba ci kër jàmbur ba ci saalu jàmbur da ngay farax farax ba ci buntu saal bi fekk waa ji tël nga doog a wax asalaamaaleykum ndeysaan ba ci ñun Omar faa la toll mu ne ndaw si aadunu ndax ma jege allahu akbar mu noon na ne maay président de la république maay amirul muminin damay def lu ma neex day ñëw rek waaye bi mu jegee xal yi lu mu def dafa nuyoo bi mu nuyoo dégg baatu jigéen dafa làcce ndax ma jege ndaw si qaalat udunu bi xayrin aw da ndaw si ne ko bu la neexee nga jege bu la neexee nga dem président de la république su la neexee nga ñëw bu la neexee nga dem ndeysaan Omar daal di jege mu ne fama baalu haulaai sibiya yatadaxawna wa xale yi lu ñuy yuuxu lan moo leen jot lu ñuy jooy qalat alju ndaw si ne ko xiif la ñuy jooy xiif alju dañoo xiif allahu akbar dañoo xiif omar bi mu déggee wax jooju qalat wa ayu cheyin fi hada alqidr Omar ne ndaw si waaw ñii du ñuy jooy mu ne xiif mu ne waa cin bi kon lu ci nekk qalat maun uskituhum bihi hatta yanaamuun ndox moo ci nekk dama leen koy noppiloo pour ñu nelaw ndox kese la day bax ma naan leen léeg mu ñor léeg mu ñor ñuy jooy ñuy jooy bu ñu sonnee nelaw ndax ndaw si foofu la yem mu ne allahu baynana wa bayna umar xamul kii mu waxal de mu ne yàlla lan doxal sunu digganteeg omar hee yàlla moo nekk sunu digganteeg omar fa qaala rahimaka allahu maa yudri omar bikum omar mooy wax de ndaw si xamul ku muy waxal omar ne ko yow soxna si yal na la yàlla yërëm lii xew fii omar yëgu ko li xew fii seen xiif gi ñàkk a lekk omar yëgu ko qaalat yatawalla umurana wa yaxfalu anna dégg nga ndaw si lu mu wax yatawalla umurana wa yaxfalu anna loolu nu mu mën a nekk naka la lu tax yëgu ko dañ koy jox sunu mbir ba pare mu sàgganenu kon ñi ñu jox tey mbiru jullit yi ñi jiite jullit ñi tey li dal jullit yi ñoom lu ci seen responsabilité dégg ngeen ndaw si li mu wax Omar yatawalla umurana sunu mbir yëpp moom lañ ko jox ba pare wa yaxfalu an na tey ak a bëri ci société bi mbir mu xew ba passé suñu waxee ñu ne non président yëgu ko woon daf ko war a yëg parce que dafa war a génn palais dafa war a wàcc dugg ci dëkk bi xam li xew waaye maal asaf dañuy ñëw nañu ñun la suñ leen lee yéen la ñu fàtte ñu Omar nag melul woon noonu keroog ba ko gaa yi ne yow la dégg ngeen ñu ne ci waxtum sedd la Omar gënd Omar bi mu déggee wax jooju ndaw si ne yàlla lan doxal sunu digganteeg Omar Omar tontu ko ne ko lii xew fii Omar yëgu ko ndaw si ne ko mënul nekk parce que moom lañ jox sunu mbir kon daf ko war a xam daf ko war a xam fa aqbala alayya sahaaba bi nee na Omar dafa gestu xool ma nee na bu ma xoolee ba jàkkaarloog man li mu njëkk a def mooy dafa daw nee na ma daw topp ko munuma ko dab ma koy dàq muy daw fu mu jëm ndeka Omar mu ngi jëm baytul maal baytul daqiq fa ñuy denc dund gi bi mu yegsee fëgg buntu beeg daanaka dajji ko la yemale ba buntu bi ubbeekoo Omar lu mu wax ki mu àndaloon yen ma benn saaku sunguf sahaaba bi daal di téye saaku bi de ko déet maa ko yenu wala yow mu ne ko yen ma ko waa ji téye ci saak bi ne ko maa ko yenu doo ko yenu mu ne ko yen ma ko ndax yowmal qiyaam doo ma yenul samay bakkaar waaw yen ma ko ndax yowmal qiyaam doo ma yenul samay bakkaar xoolal ñun fii li tax dëkk bi mënta jub mooy ay nit yuy jël responsabilité yenu ay bakkaar lu ngeen def baax na fii ku fi ñëw yàlla baal na la fii ku fi dugal sa dërëm doo lu la yooyu ngay dégg ñu jël diine ji oyofal ko moo tax Sénégal mënu nu baax du nu baax c'est parce que ay nit ñooñu yenul sunu àllaaxira nit day yore àllaaxiraam ci loxoom di tiit mu jàng yàllaa ne wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayuhu sawfa yura sa jëf yow rek ëllëg yowmal qiyaam amul keneen yow rek la ñuy wax ñëwal jege si yow la ñuy àtte waaye buñ la ko yenuloo xoolal yonent alayhi salaatu wasalaam moom yonent lu mu ñemul woon ngay gis fii Sénégal ku ko ñemee yonent bi ànd na ak sahaaba bi lu muy def sahaaba bi di téye dàll yi di ko may ndox di téye yat bi benn bis yonent xool ko rek yërëm ko ne ko waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla yàlla may la ko waxal loo bëgg allahu akbar yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jàkkaarloo nit ne ko waxal loo bëgg tey kenn ci ñun su ko président recevoir oon ne ko waxal loo bëgg wala benn kilifa ne ko waxal loo bëgg lu muy wax kat kat 15 sur 10 mbiru àdduna yooyu lay wax mbiru àdduna sahaaba bi ko yonent bi ne waxal loo bëgg mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna ànd ak yow aljanna dong laa bëgg yonent ne munuma loolu waxal leneen munuma loolu munuma ko de waxal leneen mu ne yonent bëgguma leneen lu dul loolu nii ma ànd ak yow àdduna ma ànd ak yow aljanna yonent bi ne kon ainni ala nafsik bi kasarati sujud kon dullil lu bëri kon del jaamu yàlla loolu la ko wax xoolal ñun tey omar bi waa ji jàppee ci saaku bi xëcc mu xëcc fa qaala ahmilhu alayya fa qultu ana ahmiluhu minka anka yan ma ko mu ne ko maa la koy yanul benn yoon ñaar ñett omar di répété muy répété omar ba mu sonnee da ko ne hal anta tahmilu anni wazri yawma alqiyama ndax samay bàkkaar yaa ma ko yenul yawma alqiyama mu ne ko déedéet mu ne kon bàyyil ma yenu ko omar président de la république yenu saaku bi di daw ak moom di daw ak moom mbokk yi di daw ak saako bi waa ji topp ci ginnaaw di ko dàq Omar di daw ak saako bi ñii ñooy war a jiite ku bëgg a jiite nii ngay mel da ngay xam jullit ñi li leen war xam miskiin yi xam faqiir yi wat tolloog ñoom waaye fii diineeg aduna ci yem ñi jiiteeg aduna ak ñi jiite diine ci yem sëriñ bi sax ku ko bëgg a gis foog nga ñaan audience foog nga rang foog nga yendu foog nga mel ay façon mel foog nga yor foog nga wàcc ci ñu doog laa recevoir aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله قال الصحابي فانطلق وانطلقت معه صحابة بن عمر دبار ما دبار توب ci ginnaawam mu ne fa har wala hatta intahayna ilayha mu daw ba fekk ndaw sa fa mu toogoon fa alqa zalika indaha wa axraja min addaqiqi shay'a omar ñëw teg saako bi xotti commencé sotti ci cin bi omar a ngay togg président de la république ma ngay togg allahu akbar ndax yéen di ngeen am président bu leen toggal omar a ngay toggal miskin yooyu jirim yooyu xale yooyu sahaaba bi nee na li ma gën a yéem mooy omar sikkim bi dafa fattoon tal waaye Omar moo sëgg ci suufu xal yi matt yi mu ne wa jaala yanfuqu hat tahta alqidri wa kaana za lixyatin azima mu ne fa jaaltu anzuru ila adduxaani min xilaali lixyati hatta andaja taam Omar a ngay sëgg ci suuf di ëpp furno bi di ëpp matt yi sahaaba mi nee na may xool saxaar si di génn ci sikkimam bu fatt bi Omar a ngay ëf di ëf ak gémmiñ gi mu ne ba lekk bi ñor Omar siggiwul ba lekk bi ñor Omar siggiwul saxaaba bi nee na maa ngi xool saxaar saa ngi génn ci sikkimu Omar bi mu ñoree nan la def mu yekk ko ne leen naan ndaw si lekkal leen maa koy seddal Omar loxo ndey jooram bay ràcc loxo càmmoñ bay upp allahu akbar loxo ndeyjoor bi mooy ràcc laax bi ndax mu sedd loxo càmmoñ bi mooy upp ndax mu sedd sahaaba bi mooy nettali ne loolu maa ngi taxaw di xool Omar xale yi lekk ndaw si di leen lekkal Omar di ràcc di upp ba xale yi suur Omar daa di jóg daa di bàyyee ndaw si la desoon ak saak ba mu indi Omar jóg dem toog fee ca wàll ba di leen xool xale ya doon jooy sànq xale yi commencé di dàqante di kaf ba xale yi commencé kaf di ree di dàqante yaay ji kanam gi firi Omar ne sahaaba bi mu àndaloon nañ ñibbi mu ne ko waaw depuis sànq lekkoon nañ lu tax demuñu mu ne ko dama leen fekkoon ñuy jooy duma fi jóge lu lul ñu ree dama leen fekkoon ñuy jooy waruma fee jóge lu dul ñu ree ana ñu ñun tey ana ñu ñun tey ana ñuy jooy ci mbedd yi ana ñu amul fuñ dëkk ana ana ana ana ñu xiif ana kan moo leen di wàllu tey jullit yooyu ana ñu ñi feebar chaque jour nga dégg fii ku ñëw dama feebar aw ma lii aw ma lële chaque jour nga dégg ci mbedd yi nit ñi jàmbat ku nekk ñii xiif ñii bu ñu añee du ñu ndékki ñii bu ñu ndékkee du ñu reer ñii noonu lañ mel da ngay gis borom kër boo xam dafa xëy daw këram fajar ba guddi du ñemee ñëw parce que amul lu mu indi ñuy fowee xaalis bi chaque jour ay milliards ngay dégg milliards milliards te ñooñu ñëpp ñun ñii ñun ñoo leen fa teg bu nu neexoon fii ak 5 heures rek kenn du fa nekk waaye comme ñun nag danoo lank bañ a jaamu yàlla foog yàlla jël benn yar teg sunu kaw bu nu gis ñii ñii du ñu def guddeeg bëccëg ñu naan munuñ ci dara ah kay mun nañ ci dara waaye ñoom yar la bu yàlla di yaree jaam yi saa yu jaam yi lankee bañ a topp yàlla rek yàlla nee na ma tàggat ku leen duma yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit ñi bu ñu jàddee yàlla indi ñett awalan mu ne yusallitu llahu alayhim sultaanan jair yàlla day teg seen kaw buur bu dëng saaniyan yazilu lbarka min kasbihim yàlla day dindi barke ci dund gi ñetteel mu ne wa yaxrujuuna min addunia bi gayri iman bu nuy dee di dem alaxira dun yóbbaale iman dun yóbbaale ngëm allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaayi وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله قياس tollale sàpp yi fatt diggante yi bismillah
Allah